ben bon appétit ah ñu ngi nii Paris ah ak numéro 1, Père Ndiaye et Père Ndiaye dégg naa gars yi nee nañ yow da ngaa ñëw foofu di ma kii. <laughs> gars yi ah lu xamul xamul. pàccal farax <laughs> loo mhm. xamul hmm? y a des choses yoo xam ne. boo ko xamul rek xamul loolu lañ naan mag bi jaaxaan borom bi jaaw du xool